asiru malaraayi nasiru wasanaytaani hunaka asiru asiru malaraayi nasiru wasanaytaani salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuhu mbokk yi xam ngeen kon tey mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis bi nga xam ne moom mooy bisu màggalu Touba ku wax màggalu Touba nag wax bis bi nga xam ne Serigne Touba jóge na fii ci senegal dem ca nattu ba di jamono bi nga xam ne tubaab bi mel na ni kon tegoon na koy gët waaye nag Serigne Touba fit ba ak jàmbaar ba daal di nangu dogal borom bi dem ci li nga xam ni kon mooy nattu ba. yu delu dellu see gis ngeen li indi ba tax na kon ci màggal gi nga xam ne dafay dëppoo 1433 de légir mu demal leen ci yenn ay bërëb gis ngeen fii ñu ngi ci daral bi ndax ku ni màggal wax bernde te wax bernde wax rim ba tax na kon daanaka mel na ni gannaaw ba nga xamee ni Serigne Touba mu Rasuul waxoon na ne bisam bi bu dikkaatee nanu fexe ba lewatal lu mel ni ganaar jëm bëggaleem murit yëpp farlu ci ne di ak lolé amanasa sax fi ngeen gis ni ci daral bi ay nag rek ngeen fi gis murid yi nag danoo xër dañu bëgg serigne touba ba tax na kon lu mu sopp ci ñu lu mu bëgg ci ñom rek mu daal di ak mom gis ngeen jamono ji ñu ci daral ji nga xamné mo nek ci ci xel xom ci kër kab dara bu nga xamné daral bu yes la commune rural ak kilifay touba yi jël dogal ne kon dañu yóbbu ñi nga xam ne kon ñooy sàmm yi foofe ñoom it ñu bëgg lool gis ne kon ndigal la te ndigal jëfe ba tax na kon ñoom gis nañu ne dana def seen kéemtalaay kattan ba lu jëm ci wàllum nag yi du yokk njëg yi benn yoon te loo leen wax def nañu ko xanaa duñu def rek lu dul déglu ñenn si ñoom ñu indi ci ay kàddu daal di leeral li nga xam ne moo jëm ci dara boobee ak it màggal gi. Euh, nun mbokki daral gi noo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci wàllu liggéey ak jur ndax yàlla dogal na nekk nan tuubaa ci ndaamaatu nekk bi it na lool baax na waaye ndekete yeex na noo ñëw fii ndax nun kenn ku ci ne tey jot na boppam kenn ku ci ne jot na boppam bu baax ku fa doon am benn am nga fii yaar yàlla dogal na itam am na jàmm am na kaaraange daanaka mën na maa wax ne ren benn sàmm buy daw gisuma ko ndax nag bu dugg ci daral bi ñu daal lay dugal tëj daral bi benn nag du daw mboolem lu may wax nag maa ngi koy wax ci ndigalul paate mbeng jëfe ndigal bu wér a wér a wér ci la nekk fas na yéene ñëw ci ndigal li nekk ci fas yéene ko ànd ak sëñ bi fas yéene liggéey lun yóbbu ci yóbbu suñ kër ak lun defi addiya ci sëriñ tuubaa noo nun ñëpp maase nañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax yenn coono amuñu ko fiin toll lépp loo xam ne mooy jur nag am na fi am nan ay nag ba mu doy am nan ay fas ba mu doy am nan ay mbaam ba mu doy am nan ay xar ba mu doy am nan ay gëléem képp ku fi ñëwit luñ ci man daanu ko def ak yow lan ba fa suñ doole am ci yërmande ngir sëriñ tuubaa noo ngi ñaanit ci kàttanu yàlla sëñ Cheikh Maty yàlla na fi yàgg te ànd ko nu ànd moom ndax nun fii leen fas a dunde fii leen fa a faatoo yàlla jox na fu nuy liggéey ci ndigalam noo ngi wéy ci ndigal li faw dunyaa wala aaxirat wàllu nag nag euh, am na fi bu baax a baax a baax ku bëgg wu ndaw am na ku bëgg wu mag am na ku bëgg wu suur am na lépp lu fi waay dikkee da amu nag woo yóbbu màggale ko daañu ko yombal bu baax am na soppi ko tuuti bu ci ne rek mooy euh, loo gu yaatu goo xam ne gii tubaar tubaarkàlla daal amul benn coona lépp am na fi eyi wanndiraaɓe alpulaar gooto moon fof mi salmini ɗum indi yettoode mum caggal de jettin allah nelaaɗo mum heɗen ɗo ƴetta konngol seeɗa faade kabaru maggal ngal kabaru maggal ngal noon koko nodda si amadou bamba noddi ngal e gilande a walu hangal nodde yimɓe ɓe nooto komin cohli ko heen lay seeɗa tan ko juutaani ko wonande to min gondon ndaamatu min ceerno it itti amen toon dow yamirore holli amen do min poti won e dow yamirore min jabi dum ne min ne dum ko yamiri amen ko dum amin amen saabu goto amen wal dañɗo ton ko palasel wala feccere place gaay non kala garda gaay de arkinaki ma dañ place wujma ma ɗiɗi ko heddi ko non ko kala mo da hore ma ari gaay hada jogi won ka sokli yeeyi ma dañ hen sécurité mo da hore ma a wujjantaki si allah jabi tawi koye wona a yaltin a wujjantaki hay goto wujjantama saabu koko sokate waɗi garde hina waɗi ndiyam hina waɗi ñamde nayyi huuɗo yo gooƴe yo rippas fof no ɗo aydara ko manki gaayo heddi ko noon ko wona mana enen ɓe ɓe ganduɗa heɗen gon liggotoɓe jawdi sika neɗɗo addi jawdi a yoɓama ko mbawɗa yeey woto wi beeli tan mi daña ko welimmi komi fuɗɗo yeey wondon a yaata ɓooya wooda ko nanɗa kortoɗa ɗum nantu ɗum wonta nimsere e ma ha ɗum taki sika addi kakol tawdi ka cohɗo sigol waɗama addaɗama ko mbawɗa yeey tan sa heɓino on jeeya sika tawi noon a jibanira kakol ƴeew ngol ko ngol jarata ko sika yoɓama wana ɗum jeeya kono sa wi aɗa fooɗa ha ɗum woɗɗoya ɗum ɗewat ma saabu ma nan ko ganduɗa hoorema jombani kortoɗa ɗum nanto eyyi yamirore nde noon ceerno yamir yomin gon gaay ceerno wiɗamin o place min jooɗe hen min jooɗe hen bone saabu yamirare mum si ɗum yawti kala bandiraawo haalpulaar ɗo gonɗa kala ko jogiɗa tuggi ko mbeewa mbaalu nagge ngeelooba puccu saret kala ko ngadduɗa ma holle place ɗo mbaɗɗa ɗum min tegani hen luwa mo gandanɗa hoore mam wona jaadiɗo koko foti ko wee tan mbeɗata hen saabu nagge ko buuynogal tan joɓata hen garde onon an andi ɗo jobde ɗum laayadita garde o garde o ne ɓurata garde o ko capanɗe joyyi tan joɓata gardani ɗan nayima ha allah weete cooke eyyi so ɗum yawti miɗen jetta allah miɗen jetta kala mo ganduɗa ɗo hoore ma ligga daral he miɗen hen noddi foof ne kay ala o yo oyato miɗa hen wawi wedde seeɗa konnguɗe pour jolfuɓe seela maɓɓe ɓe gondumi ɗo a ah, mbokki wolof yi ma ngi nuyu ku nekk turam ak santam di ñaan yalla itam ñu fekke màggal yu bare bare bare fa ñu nekkoon ci ndigal lañ fa Mui ci ndigal lañ tok fi muy ndigal bo xamne khalifa bi moko digle gannaaw moko digle nag nun ñu ngi wé ci ndigalam di ci yok itam nag ñi nga xamne ñi wuti ay nak teguñ ci nay lo xamne li lii du jaatuwul la manam bëgg nañu di wolof di wax naan bu sel yoy bu euh, giir dem ak neen dañu bëggoon ku ñëw fi kep ku ñëw fi ci magal gi lo yor nga mëna am nag wo xamne dang koy téralé say gan su ko defee ñu yag ko def yag ko am lool rek mo nekkoon samay kaddu ci am euh, mbir mi. ngi leen di balu àq assalamu alaykum yeen mbokk jullit ni ñu doon salmina goor foofu indema yettode mum miɗen on noddi kala mo ngannduɗa ka haal pulaar miɗen o noddi ɗo o daral kirkabba min ngarino he ngal a yamiroore min piɓee ngal inne jooɗone e yamiroore gila nagge haa mbaalu haa mbeewa haa gertagal haa kulla mum um, miɗen noddi kala elo woor miɗen o noddi ɗo a daral kirkabba min ngaccaani pulla min ngaccaani ceɗɗo min ngaccaani ceeraaji min ngaccaani naar kala garɗo ma yeeyaani ɗo jawdi ma maandi gardane amma yoɓeen droit ji poɗɗa yoɓ deɗi nisaani amma dañ diam ɗo jarnda amma dañ ɗo ballinɗa amma dañ da juutɗa kala mi dal ma don noddi min gaccani hay got gila pul ha min noddi fop min tebi do ndigal min tebi do daral belgal daral jangal daral foftini ngal ala tamper ala caɗele gila ñaade min mbawi ɗo jiwon joni woni ko eda hisi eda moddi mopta garanti kala gardo ma ando wolor koma ligra ko mbo jari dum gal daral Senegal na foti wa ngal do yi tay wana europe do yi daral bangal ni gildo senegal dum ɗum kala do ɓiɗɗo fulla woni min diima ya ar not da a daral ker kabba saɗa yeeya amma ye amma taw sodo wa waɓe sood kala kaɗa yeeyama ɗum soode do wassalam dem non go fi nga xamni moy ndindi ni ngeen ko gisee ci image yi ki mom danaka bokku na la fa gëna fess ay gilem waxoon nanu leen ni Serigne Touba dafa wax ni bis bi dellu see nanu fexe ba daal di koy santale boroomam ginaar jëm ba gëléem kon gëléem it bari na lool ci dëkk bi ay taalibe Serigne Touba rek indi ko fi ngir santle Serigne Touba moomee boroomam kii sunu mbokk naar la indi woon ay gëléemam nu déglu ko ويدور حد يقول لك كلام عربيه كان كوم البلش مشكله البلش رجعت فيها من القدر وجايبينها للشيخ كانوا مدوروا فيها زين للشيخ والوقت اللي يجيبوها يقول لك كلمتين من العربيه والله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم نحن أتينا هنا وافدين من الدولة المجاورة للدولة السنغالية وهي الدولة الموريتانية الجمهورية الإسلامية الموريتانية وأتينا هنا نتطفل على بركة الله وبركة هذا القطب الذي هو هو صاحب هذه القرية العظيمة وهي مدينة الطوباء وأتينا نسترزق بتجارتنا وهي الإبل لكي نبيعها والحمد لله ولم نتلقى أي صعوبة

مسيري إلى الوهاب جل جلاله رماني إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالعروة الوثقى التي هي نور بي سرت من ربي لربي موحدا وهو النصارى والدور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

ñoo koy waajal murid yi di ñëw ñii di yéeg ci ay saret ñii di yéeg ci ay welo ñii yéeg ci ay daamar ñii yéeg ci ay terrain gis ngeen ni ñuy ñëwee macha allah oto yi rangaloo ñëpp jóge fanu bawoo ci bisimilah rahmaani rahim na ma egsi fii ci tubaa ci alhamdulilahi rabbil alamin muy digal gu nga xam ne Serigne Touba digaloon na leen ko nu fas yéene sàmmonteeg ñoom seen girug dund ba tax na kon gis ngeen leen ñu ngi ci biir woto yi bàyyi lépp seen ginnaaw dëgmal Touba dëgmal bëgg-bëggi Serigne Touba yi gis ngeen kon lii mooy màggalu Serigne Touba mel na ni kon dama ko bëggee woon taalibe yi ñu ngi jéem def seen kéemtalaay kattan donte jafe-jafe àdduna yi bari na teq-teq yi bari na waaye nag mel na ni bu bis bi jotee moom seen kéemtalaay kattan la ñuy def. ngir ñëw ñu ngi gaar bu mag ku ni gaar bu mag nag wax fa nga xam fa la train yi di jëm gannaaw ba nga xamee ni bawoo nañu ndakaaru ñenn ñi di jaar gin ginnaaw ña si des gannaaw ba nu jaaree Thiès di dëgmal fi nga xam ne mooy Touba gaar bu mag nag mi ngi ni train yi gis ngeen train baa ngi noonu di egsi ay taalibe rek nekk ci ay murit Serigne Touba ñii ñoo bëgg Serigne Touba ñii ñooy lijjanti ba naka Serigne Touba bëgge woon nu koy defe ni foo dem fu ne ci biir Touba ñoo nga fa ñu ngi gaar bu mag ku ñuy gaar bu mag nag wax fa nga xam ne fa la train yi di jëm gannaaw ba nga xamee ni bawoo nañu Ndakaaru ñenn ñi di jaar gin Guinguinéo ña si des gannaaw boo nu jaaree Thiès di dëgmal fi nga xam ne mooy Touba gaar bu mag nag mu ngi nii train yi gis ngeen train baa ngi noonu di egsi ay taalibe rek nekk ci ay murit sëriñ Touba. ñi ñoo bëgg Serigne Touba ñi ñooy lijeenti ba naka Serigne Touba bëgg woon ñu koy defe ni fo dem fu ne ci biir Touba ñoo nga fa fu mu mëna a ak lu mu sori sori danañ ko jéem def xam ngeen waxon na leen ko ni fu ne la ñuy bawoo ne lañu dugg aw yoon sax dañ koy jël jugé dëkk ba dëkk ngir ñëw fi ndax fukki fa na juroom ñett ci wëru safar day bis bu nga xamne ne mënuñ koo weccoog benn bis bu mëna doon gis ngeen kon mi ngi nii ci garu mag xanaa nu déglu suñu mbokk mi moom bokk na ci ñi nga xam ne nangu nañu wuy ji wooteb Serigne Touba bi nangu nañu addu ci li nga xam ne Serigne Touba sàkku na ko ci ñoom mooy mu sant la ko suñu borom. salaamaaleykum wa rahmatulah kon ñu ngi fii ci gaar bu mag dikkal leen train yi nga xam. kon arrivé train bi ngeen gis nii muy doogaa yegg si nii kon dina leen jox impression client yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci nekkoon pèlerin yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw tey dina leen jox ñoom ñëpp ginnaaw train bi day doogaa yegg si nag dañ leen di digtal euh, arrivé bi rek waaye di leen def ay interview euh, wax leen euh, naka lañ dundee yoon wi ak coono yeeg yëpp lépp client yi di ñëw ngir wuy su bés Sëñ Tuubaa bi nga xamante ni suba lay doon muy 18 safar 1895 euh, d'époque ren 12 janvier 2012 euh, kon euh, comme ñu leen ko waxé y rek ci yenen information groupe communication touba avons point org ñoo dikk tay ngir indil leen interview bi nga xamanteni mom moy est arrivé train yi ci gare bi baax na ngin ngi new lan jóge waaw xanaa neex rek nag parce que ñëw ngeen màggal si parce que ne siyaare sëñ Touba ba mu jeex uh-huh, uh-huh. ak sëñ Fallou Mbacké naka yoon bi ba méttiwul méttiwul métti na waaye yëguñu ko nag uh-huh. ndax sëñ Touba moom ku ñu jëm rek loo sonn rek xeeb ko ndax lii mu am noom nooflaay mayewu ko dafa sonn ba am ko kon kuy ñëw waroo bëgg sax nooflaay nan sonn ba am leen bëgg bu yàlla ji la yonent baax sëñ Touba noo ngi bu baax yal naan yàlla dajawaat fi nagari déwén yokk ba yëg koog sunu njaboot ci kattanu yàlla ak yonent Tuubaa ak sëñ Tuubaa mi ni jëm yal nañu ko yàlla may. man de maa ngi commencé woon ca ba ñuy jëli xeer yi ca jigéen ñi yenu may yenu ba naga ni musuma ci manqué benn bis 26 nag laa juddu 26 ci laa juddu maam Cheikh Anta sañ ci gaawa kon kon papa dañ lay laaj yow màggal yu njëkk ya nga daan dund ak màggal yii nga mujj dund. yéen a doole. عليك يا مختار باجتهادي بكل ساعة kon ñu ngi fii tey ba tey ci gaar bi ñu ngi taxaw ak sëñ ba fay inspecteur moom euh, daanaka ñaari at a ngi nii ñu ngi ko fi fekk ñu ñaan suñu borom yàggal ko fi yàggal ko ci liggéey bi. kon euh, dañuy dañuy dikkaat rek mu dikkal ci wàccaay bi nga xamante ni muy wàccaay màggal ren euh, di woote sëñ Touba di 18 safar 1895 bis bi fi sëñ Touba jóge woon dem géej dëppoog ren 12 janvier 2012. kon mu mel ni suba la màggal gi train yi ñu waxoon ni day ñëw yëpp daanaka tey la ñuy arrivé bi kon gis ngeen tey léegi ci image yi train bi nga xam ni moo yegg si léegi kon ñu lay laaj sañ dem rek kon naka ngeen waajee ren màggal gi ak ñaata train moo war a ñëw ak ak ak ak jafe-jafe yi ngeen ci am ak soppite gi ak ren tamit yokkute gi nga xam ne am ngeen ko ci bis bi bisimilah. waaw léegi bon loolu moom euh, vraiment kontaan si pour euh, répondre si parce que boo xoolee am na CRD yi nga xam ne def nañ ko. bon fallait biñu ñuy def euh, Diourbel euh, au niveau de la gouvernance mais en même temps defal CRD fële au ministère de l'intérieur mu jël mujjanteel bi moom moy CRD bi def euh, résidence su Rasoul donc ay dispositions yi jëlone jëloon yoxoon bon def nañ ko dal bon le demb si talaté bi amna ñett sahar yo xamné ne ñëw nañ fi ñom ñëpp ci ah, nañ ci jurbel ci jamm bon tey jii juroomi saxaar nañ amoon donc pour l'instant, instant am na boo xam ne bon Thiès la war a jógee ñëw na bi jógee gée ngi ñëw na pour l' instant des na à peu près bon à peu près boo xoolee muy muy trois trains bon donc loolu moom moo des si problème saxaar yi pour que tey jii mu mu mu mu jeex daal bon suba incha allah je pense moom mooy kii bu màggal bi donc après donc le màggal dana am mooy train yi dañuy retourner pour dem fële bon moom aussi mooy mooy Dakar yi yi gée aussi continuer yi Thiès continuer c'est-à-dire bon si wàllu kii parce que soo xoolee euh, démb am nañu ñett saxaar yoo xam ne dakaar nañ jóge mooy talaata bi bon donc alarba euh, donc aussi muy tey war nañ am aussi ñett saxaar yoo xam ne Dakar nañ jóge boo xoolee muy juróom-benn bon c'est-à-dire benn saxaar boo xam ne gée ngi neewul lay jóge muy juróom-ñaar pour donc mu jëf mais c'est que daaw dañoo xoola de dafa ji woon saxaaru Thiès bi mais te saxaru Thiès boobu dafa am lu ñu vraiment am njariñ dal pour mun a jël mooy dañ ko yokk bi ñu def mooy dañ si yokk saxaru cees boobu moo tax boo xoolee donc actuellement mooy mooy journée bu mooy tey ji bu talaata bi am nañ juróomi saxaar donc ça veut dire ñett yoo xam ne Dakar nañ jóge benn bu jógee gée ngi ñëw ak beneen boo xam ne Thiès la jóge màggalu Tuubaa nag dafa laaj lu bëree bëri ndaxte ni ñu ko waxee ay millions doomu adama ñoo fi ñëw bàyyi lépp kër ginnaaw duñu ko lijjanti ñëw fii ndaxte bëgg noo wute bisub Serigne tubaab bi ku nekk nag am nga sa bis waaye meneen bisub Serigne Touba bi taarix la ndaxte sëriñ Touba daa taamu woon màggal bis bi nga xam ne sunu borom da ko cee teg ay nattu ndax nag ñu bari ñoom dañ doon bàyyi ba am ndam ca lan doon jànkonteel wala boog bu nu jugee ci nattu nu soo ko sant yàlla waaye moom bis ban ko tegee nattu. la ne bis boobee lay sant yàlla ba tax na kon gis ngeen loolee nag bu laaj mbooloo mu bare bëri lu ñëw fii ci Touba tax ñenn ci ay tax ñenn ci xeet wi ñu leen tuddee ay sapeur pompier ñoom ak seeni woto daldi ñëw ndaxte nag bis bi dafay nekk bis bu am solo bis bu bari mbooloo lu ne mën cee xew ñoom it ñuy def seen kéemtalaay kattan ngir ku am jafe-jafe lu mu tuuti tuuti nu xool nañ cee taxawee ndax loolu mooy seen warugar. bisimilah rahmaani rahim kon ñu ngi fii tey ci groupement sapeur pompier euh, bu Touba bi bi fi gën a mag bi nga xamante ni ñu ngi taxaw ak euh, suñu Abdoulaye Ndiaye nga xam ni moom mooy colonel bi nga xam moom moo fi nekk di chargé de la communication. kon euh, ñu gis ni sapeur pompier liggéey bi am solo bi nga xam ni ñu ngi koy def ci màggal gi ci wàccaay wi ci ci ci ci bis bi ak même bu jàllee kon looloo waraloon tey tànk yi comme ni ñu ko defee woon daaw rek ñu ñëwaat fi ren. ngir euh, wàccaay wi nga xamanteni journal bi ñi def bis bu ne diko ko digtal euh, pèlerin yi pour ñu mëna xam bis bi li fi xew ak li ci mat moytu ak li ci mat def kon yaakaar naa dañuy laaj rek sëñ euh, buñ ko bàyyee mu présenté wu sëñ sëñ Ablaye mu wax ñu préparation ren màggal gi ni nga xamante ni groupement sapeur pompier waajal na ko comme ni mu ko daan defee chaque année mu digtal ñu rek xew-xew yi fi am ak jox ñu xalaatam ak impression am ci li nga xamante ni

ça ko pour nous euh, def mission efficacité ak euh, ni alors donc ñun donc samedi parce que comme nous ko avant euh, pour que nous parce que surtout week-end bi avons ah, déplacé le donc nous, donc samedi déjà

Euh, ñu bàyyi kook liggéey bi maanaam daal ñu bàyyi ak liggéey bi caserne bi nga xam ne moom moo nekk fii ci Touba ak yeneen caserne yu Diourbel ak ak ak ak Thiès. kon su ma déggee sëñ Ablaye dafa mel ni da ngeen a renforcer euh, caserne bi nga xam ne dafa nekk Touba kon déployer ngeen ay moyens yu mag moyens yooyu lañ bëgg nga nga nga digtal ñu ci euh, ngir nit ñi mën a xam liggéey bi nag naka ngeen ko dundee ren. voilà donc indi nañ fi ci ay nit lu toll ci juróomi téeméer. ak fuk tubaab bi naan 510 hommes ci biir euh, juróomi téeméer ak fuk yooyu am na ci fukk ak juróom-ñett yoo xam ne ay officiers lañu mooy grade grade yi gën a kawe. et te ci officiers yooyu am na ci juróom-ñett yoo xam ne ay médecins lañu yoo xam ne seen liggéey moom mooy euh, seet vraiment euh, wërgu yaramu nit ñi et cetera ah ak blessé yeeg yooyu donc mu doon loo xam ne dafa yokk ren par rapport ak daaw. Ah, parce que euh, euh, puisque comme ni ko waxe magal bi at bu nek nous ah, alors donc chaque fois day puisque day yokku donc ñun tamit dañuy top dynamique alors donc euh, téméré nit téméré nit yoy ak fukk indi na nañu fukki yenn ambulance hmm, ñu tolok ñaar ak ambulance euh, fukk ak ñaari oto yoo xam ne pour ay fay lakk la yi si des doon yeneen ay oto spéciaux yoo xam ne yii pour dégager ay oto yu nekk si yoon bi la ah, yii pour def ay liaison ah, yu gaaw et cetera ah, euh, yeneen yi pour transporter ay nit alors donc noonu la ñu toll euh, pour pour pour def liggéey bi alors dispositif bi ñu tëral nag pour mu gën a efficace comme niñ ko daan defee toujours mais ren sax dañ ci gën a appuyé wu mooy dañu am euh, yenn moyens yoo xam ne dañ koy bàyyi fii ci Touba ci biir Touba ak li wër Touba mooy maanaam lan donc am na ay moyens yoo xam ne fii lay nekk ci camp bi mooy donc suñu wooyee ñu mën a gën a gaaw a dem am yeneen moyens dañ koy pousse nga xam ne mu gën a jege nit ñi fële ah maanaam yoonu Daaru Musi dinañ fa teg ay moyens Mbàkke dinañ fa def ay moyens euh, yoonu Daara ñu def ay moyens donc nga xam ne dañuy wër dëkk bi de sorte fu ñu wowe rek dinañ mëna dem rapidement fi gëna a moy déplacer wu pour euh, euh liggéey bi gëna a gaaw alors euh biñu paré ci loolu donc dispositif bobu nekk ci biir Touba ak li wër ñu sét nak né alors li ci ëpp ci ay accident ci yoon yi lay am yoon yi nga xamné ñoy dugg ci biir Touba jóge fépp ci Sénégal motax tax axe yëpp muy manam jóge kuy ñi ñuy jóge Ndar di ñëw ñi jóge Dakar di ñëw ñi jóge Kaolack di ñëw fu ci nekk seet nañu ay distance yu yu normal hein, ñu teg fa moyen parce que boo seetee diggante Tivaouane am na caserne bu fa nekk mais Mekhe amul caserne ñu jël ay moyen teg ko Mekhe nga xam ne dinañu Mekhe dinañ mën a euh, dawal ba Kébémer ah hein. mer tam ñu teg fa moyen en attendant Louga Louga am na caserne donc noonu lañ ko defee ba nga xam ne axe bi dinañ ci mën a intervenir lu gaaw waaw boo seetee ci yoonu Kaolack bi aussi Kaolack am na caserne mais dañoo ñëw Gossas def fa def fa ay moyen am na amul caserne

ñu boole ci nag yeneen engins yoo xam ne pour oto bi oto yi nga xam ne dañuy accidenté barré circulation bi ah ñu teg benn boo xam ne xombal lay nekk beneen bi ñu teg ko euh, ndulo ah pour que su oto yooyu su kaa yu mel noonu amee au lieu circulation bi di barré ñu daw rapidement teggi oto boobu teg ko ci trottoir bi pour yoon bi gën a mën a fluide donc voilà dispositif boobu dans la la la ñu la ñu indi ren boole ci nag alors en plus euh, euh, puisque ñun ministère de l'intérieur la ñu bokk direction de la protection civile donc bokk ak ñun liggéey bi ñëw ubbi fi ren hôpital mobile waaw hôpital boo xam ne déplacer déployer ko alors donc moom la fi déployer ren ah, am ay médecin wu sapeur pompier ak médecin wu police ñoo xam ne ñoo fa nekk ah. ci pour vraiment euh, que liggéey bi dox yoon ku fi am dara loo nous ne alors ñu mun ñu la seet très rapidement jox la ay ah hein, ay garab yoo xam ne kooku aussi état bi moo ko mettre à euh, à la disposition pour que ku am lu problème ñu mën laa faj jox la ay garab nga dem farlu nga xam ne alors coono bi ñu wàññi ko parce que li ci ëpp nit ñi dañuy sonn bu ñu wàññee coono bi euh, il faudrait que ñu respecter code de la route waaw li nga xam ne code de la route ñu respecter ko piétons yi bu ñuy dox ñu xool fi ñuy dox parce que nit ñi bare nañu ba léeg-léeg oto yi c'est vrai que euh, war nañ def attention mais piétons yi seen seen bopp aussi war nañu def attention waaw alors euh, usager de la route donc ñoom la ñuy gën a saytu pour vraiment ñu yokk seen farlu ba nga xam ne alors lii mu bañ a jëm kanam parce que puisque eggaguñ sax ci màggal bi te des na dellu bi suñu tolloo fii mooy c'est déjà exagéré donc ëpp na waaw ëpp na donc loo leen mën daal ci biir waxtaan ngeen yokk ko di ko waxtaan ak pèlerin yeeg usager de la route yi pour ñu yokk seen farlu ndax lii mën a yem fii ñu ñaan yàlla nag mu def ko leen jëlaloon ci groupement sapeur pompier ñuy sant bu baax euh, mon colonel di ko sant bu baax ci leeral yi ak liggéey bi ni mu mettee ak tàngoor weeg lépp mais di ñaan rek euh, suñu borom fayal ko mbokk yi gis ngeen lii daal mooy màggalu Sëriñ Tuubaa bi mën nañ kon murid yi ñoom du nga fàtte bu mukk fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar keroog di bisu nafs la woon waaye ñoom de bu bis bi dellusee day nekk day nekk bis mbégte ci ñoom ndaxte bis bii lanu am lanu bëggoon ci Serigne tubaa bis bii la Serigne tubaa am lanu bëgg la mu bëggoon ci ñoom fata na xanaa duñu def lu dul bàyyi leen ngeen xoolaat xeet wi mbooloo mi askan wi ñu nu bëree ci dëkk bii nga xam ni bëgg sëriñ tubaay sanc wéetoon na ci lool tey nag moom ñëpp ngi daw di ko fekk kon duñ def lu dul bàyyi leen ngeen ànd ak sunu caméraman xool dëkk bi ak ni mu bëree mbooloo macha allah gis ngeen loolu leen doon wan mbokk yi ngeen ànd ceeg comité d'organisation bu màggal bu Touba ak commission communication bi nga xam ne kon doon na def kéemtalaay kàttanam ngir fexe ba lépp lu nga xam ne xew na ci màggal gi mu fësal leen ko noonu ni nu ko tàmbale woon nag noonu am noonu am yéene di ko wéyal ndax nak magal gi ñun mom day wéel day wéy du bis bis magal gi da ñu di fexe ba lepp lu nga xamné xibaar la ci ay ndaje ci ay plateau ci ay waxtaan ñu ci and ak yeen ba lepp lu ngeen soxla ci magal gi rek ci ay xibaar ak tektal mu egg si fi yéen ngeen jëf. Voilà.